يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقداره لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على ظهري يدوم دبرا ما توجه المكاره ليا باق حبا بذكره وهو لي عنه رضيت هو عني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لي غيري جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغيري جهتي لعين يسوقه لخيرنا المعين قد من الاله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي توفيق هادنا قاد الالهام قد بيالي ما لو انبيام بدت اليوم برب الغيب أعازني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قثبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikhul Khadim ngi nekk ci jumaa ji ci teewaayu Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xam ngeen ni euh, li dalee dibéer ji ñu génn am na njàngum alxuraan ak xasida yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe woon na ci ndigal loolee nag bu ñu ko wéyalee ba dibéer ji dellu si altine ja mu jàpp ko muy bisub tëj bi ci walu njàngum xasida ak lépp lu ci war lolu nak inshallah dinañu bàyyi serigne Cheikh Bassirou mbake mom serigne Abdoul Khader mu leeral ndigal li ak niko serigne bi diglé bañu mën ci taxaw bu baax ñun ñep bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi bokk jullit yëpp bokk taalibe murit yépp ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu taala wa raxahu wa ayadahu wa zaada min nasrihi di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal ak somb yu yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci lislaam ji di ko taxawee ci biir yoonu murit ci fànn yëpp nag yal na suñu borom dolli ko kàttan ak ko fan ba lépp mu àggale ko ni mu ko bëggee ndax jëmm la joo xam ne kat ñi li bëreetu ci kaw suuf la baqiitu salaf la ndax koo xam ne foo ko séenee sa xel dellu ci sa borom foo ko séenee sa pëstéef dolli ko sa digg ak Sëriñ Tuubaa mu wóor leen daray àdduna néew ci moom Sëriñ Tuubaa rekk ne ci moom kooku ku ko am war nga koo sakkan te ko ñaan te ci and ak dalu xerit ngir ñaan suñu borom mom mi nga xane moy def moy dindi yalla nako fi gën a ndax wax na ko barki démb rek ndax ku xam fim tollu dana ci nett lu gàtt balaa wax je lima yoni ci aksi ndax taxaway taxaway suñu bi sa umbur ken da waxtu ne ngeen ko deg lu xew bala cee taalibe jëf moo ci njëkke bala caa nguur a jëf moo ci njëkk loolu nag yërmandeem ci nit ñi ak taxawaay mook ko way wolo cu maahil xumami ja Sëriñ Tuubaa waxoon ci rasulullahi suñ boon def na ko ci moom xar kanam la boo xam ne boo gisee jëm rek sax tàggu njaqare bu yàggut bi ñuy gàmm bi ñu dafa am ay pàkk lu ma junni pàkk yoo xam ne ak Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na suñu borom dolli ay leeram moo koy yëkkati woon jox ko ko tegu fi sax ñetti weer wala ñeent bàyyi ko fi pàkk yi mu séddale ko ci biir séddale ga nag ñu dagg fa kër akum pénc xam ngeen ne sëñ bi ñu ko xam xam na ne mës a yëkkati àllam di ko def ci tabax tabax boo gis këram gëm dëkk rek ay nit a dajoo def ko fa ay taalibeem daje miire kër ga defar ko ba mu ba mu àgg dafa tawax bu mucc ayib ngir bëgg sëñ bi dafa nopp def ko këram waaye sëñ bi ci pëstéef bu réy ba mu ne kër gi daal ni mu ko gisee eh, ëppale na ko boppam mu woo sëriñ Isaaxam rakkam ak sëriñ Moussa woo man mii woo sëriñ Ahmadou Badawi Cheikh Mamadou Fadel ne jëlaat na kër ga def ko addee Sëriñ Tuubaa ci biir université bi kon sëriñ bi taxawaayam kenn xamul fu mu àgg wax naa ko barki démb weer wi weesu boo xoolal li mu def ci kont Sëriñ Tuubaa bi dana mat ñaari milliards te compte boppam du mat téeméeri million neewoon na sëñu ko kon kooku ku am kilifa gu mel noonu daray àdduna itteelu ko danay nett ne Cheikh Mahoudou Bachir mas na ko wax ne ko man de li ma jaaxal ki ma jaaxal mooy muntaxa ndax moom daa bëggul dara ñaan ma ne ko bëgg naa dara li ma bëgg a jafe kon demee lii ko suñu borom defal tey may xol yëpp maase ci nongul ko xol yëpp maase yéen ko jàmm pëstéefam ak doomam ci suñu tubaab moo ko may kon ñu ko ñaan mu yàgg fi téwér di leen jot kàddu yu néew yu bàyyi ko ci moom ak i cant ak ngërëm ci li weesu lépp ndax xam na ne taalibe Serigne Touba yi dañ leen di sant rek waaye ñoom Serigne Touba leen di tax di jëf payoog Serigne Touba yi lañ ciy su te daañu ci dajeeg moom ndax sëñ bi ko digle mu joxe ndigal nag wax ma ne naa jot li bokk taalibe yëpp bi ma ko wax sax daf fekk ma nekk ci biiru yoon jëmoon làmbaay waaye bii ci guddi mu woowaat ma soññaan ma ci am lu ma ci yeesalaat. wax ma ne naa woo Cheikh Mahmoudou Xabaan mu Sëriñ Fàllu ndax Sëriñ Tuubaa lépp lu ñu koy defal ak alxuraan ci war a jiitu ndax alxuraan ni ko sëriñ bi tuddee mooy wi'a wi'a wi'aul xayri lu ñuy defal Sëriñ Tuubaa rek ci alxuraan lañu ko war a tàmbalee yàlla def na nag taxawaay boobu ci nekk ci sëriñ bi féetale ko teg ko ci loxoom mu wuutu ci magam ju tedd ja sëriñ Mamour nga xam ne kenn du ko fàtte ndax taxawaayam ak njàmbaaram ak bëggam Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom dolli ay leeram waaye moom mii itam nag di Cheikh mahoudou Xabaan mattale na liñ li sëñ bi doon séntu ci moom ba weesu kon minal mu'minina rijaalun sadaqu maa aahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu minhum man yantasir yàlla na yàgg nekk ci ay loxoom mu ànd ko ñi ko seqal ñëpp ndax sëriñ bi kat lam ma wax mooy ñi ko seq Cheikh mahoudou Bachir moom Cheikh mahoudou Fadel ak Cheikh Mouhamadou Bachir mu Serigne Ebibou ak Serigne Xaari Jaxate na wax suñu xabaar mu jokkoo ñoom yëgal leen ko ñu ànd ko taxawee ko wax ma day danaa woo Serigne Hamsatu Mbàkke mi Serigne Soyibu moom itam ñu koy ñaanal ci barke Serigne Touba yàlla na ko suñu borom dëgëral kàttanal ko ndax jàmbaar la ndax li sëñ ba jaxate doon wax Serigne Touba di ko tàgg di ko wax ne ko ku dul man ak yow yam day gindi bis jëfu yiw dellooti ci bon bonam yow yow daal sax ci lu baax waaye ba ma ko jot barki démb dama ko ne yow di am nga taw tawfeex ndax ñooñu ñëpp kat dañuy laal di daw rek waaye yow dangaa dëkk ci sëñ bi xasida yi loolu nag taxawaay la bu rafet boo xam ne ñëpp di ci yóbbaale ndax koo xam ne ba ba ma ba ma koy xam ci kër suñu son bi nga xam booba tàmbali ko taxawal daara yi guddi ajjuma yii ba mu koy def booba ma ci biir kër bi ci biir daara ja noonu laa xam ba nag mosuma xam lu soppiku ci moom kon bu jaaw bi rek ci yokk waaye xawma bëgg lu baax ak noonu ngee ci lu baax mësu soppiku ci moom daawee taxawoon na ci taxawaay bu rafet kon moom itam sëriñ bi nga koy sant ndax xam na taxawaayam jëf yu barki démbam ji rek firnde sëriñ ñu ànd ko nag ak waa xiisu tarxiya ndax sëñ yuusu moom it sëñ bi ma tudd turam ne naa ko wax ne ko na taxawu lépp ba wax ma lim ci tàmbulee joxe na ci fukki nag ak fukki gileem ne da koy tàmbule waaye lépp lu ñu soxla dana ko def waaye xam naa taalibe yi moom duñ ci bàyyi sëñ bi di ko weesu ndax walaay ko ushaari woon fil xayraat lay doon mu ne nañ ko teg ci loxol sëñ yuusu ñoo ko togg yeeg ñoom yëpp na doy nañ fexe ba ñëpp daal bu ñu àggee ci altine ja ñu daje ci pénc mi ñii di jàng alxuraan ñii di jàng xasida njàngum durus ak njàngum yëkkati ak zikrullah zikrullah bi nag ndiggal la def ak segut waaye danaa ko leeral ndax daa am lu ma ci siñ bi sant te laa tafaloo shay'an bi xayri isni fal isnu shartun fii xaboori shay'an waaye nañ xam ne zikrullah mi ngi ci biir kon ñett yooyu ni mu ko diggalee Serigne mbàkk yu fee ca Ndakaaru moo koy taxawal ñi nga xam ne féete nañ foofa te mënuñoo ñëw am nañ digalum defe ko ci Masaalikul Jinaan ak mboolem ci réew mi rek fu ñu ko mën a def lim ci jublu nag mooy toroxlu dellu ci suñ tellu ñëpp dellu ci seen borom toroxlu tuubal yàlla suñ borom jéggalu ko te ñaan ko na Euh, suñ kilifa gu tedd ga daa wax Serigne Saliou xéewalo yu bari yi nga xam ne doyu ko dara lu may ko ko ñaan sëriñ bi ne ñëpp delluwaat ci seen borom tuub te sàkk sarax ndax suñ borom kat wax na ci alxuraan yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi lam ca teg mooy yursili samaa aleykum midraaran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kon nañ gëm ne buñ ko defee rek danañ ca dajeeg tawféex ñaan ndoxam jàmm wàcc ci réew mi te ndox mi itam yan doon ndoxum jàmm la Cheikh Mamadou Faye daa wax naan bañ a céng bañ a coos te Serigne Saliou daa wax ne ndox de lu lu lu mu yàq li muy defar ko ëpp kon loolu itam nañ ko xam te xam ne Serigne Touba ku jub ak boroomam la ndax ba tey baaw naan istisqa yàgg na fi. waaye Serigne Touba kat fu ñu mës ñëw jàmbati ko ko ci njaarim buñ ko ko waxee balaa ndaw laa dëpp dana fekk da dana fekk dana fekk mu tooy te loolu xam ngeen ne ra bàyyi na ko fi Cheikh Mamadou Farid li lim ci def kenn xamul lu mu doon jabootu Serigne Touba noonu kon na ci ñëpp góorgóorlu te am ci positif bu ñu àggee ci altine ja daal sëriñ bi wax na ne incha allah moom ci boppam. mooy teewlu boppam ci biir kër Sëriñ Tuubaa gi fasal ñëpp euh, li nga xam ne yéene na ko jullit yi yéene na ko taalibe boo ko defee ñun ñëpp itam ñu maasee jëfandikoo la borom Daaru Muxti daa wax bu dee Sëriñ Tuubaa masaan digal nee bu ngeen noppee ngeen fas li ngeen bëgg ñu mu ne ko mbàkke nañ la bàyyi nga fasal ñu ndax ñun buñ fasee dana am luñ fàtte waaye boo fasee rek lépp daa dugg ci biir kon ñu itam ñëpp maase teewul rek bàyyi sëñ bi fasal boppam defe ko ak sellal bañ cee dugal puukare bañ cee dugal àdduna te teewalu rek seen digg seen suñ suñ borom teewlu Sëriñ Tuubaa mi tax ñu def te xam ne xasida yi attan na lépp ndax Cheikh Abdou Khadre Mbacké daana wax ne am na ci xasida yi yoo xam ne daa mel ne eh, kënoog guñ sox guñ sox ba tiire rek des ci xasida yi àttan na lépp alxuraan xam ngeen ne ko Sëriñ Tuubaa fonke woon waxoon na ne kaamil bii nga xam ne digle woon na ko ca gànnaar nga xam ne ba nëgë ni ñu ngi koy def nee na buñ xëyoon suba ba ngoon te jànguñ ko asamaan si suuf dana jaxasoo kon na ñëpp seenu xel la te góor góorgóorlu ci bu baax te li sëriñ bi wax rek la mu waxoon daaw daa waxoon ne ñaan rek ñu ci war la ci ñu bàyyi ko ci loxo suñu borom ndax suñu borom nag man nga ko ak ñaan mu may la ci baaxam wala mu soppil la ko watteel la ko leneen lu gën moo tax li Sëriñ Tuubaa waxoon rek yaa in aataytani fa shukru wa in manata faridna wa sabru nañ lu ñaan te bàyyi lépp ci loxoom te xam yàlla suñu borom kat la kilifa gu baax daa wax yàlla kenn du ko poñe da ngay ñaan rek te dellu ci moom kon na ci ñëpp am positif mboolem taalibe yi itam nag. xam ngeen ne dana yaatu ku ci mën a togg ay ñam lépp ci sarax la ku mën a dimbalee koo tane lépp bokk na ci li nga xam ne mën na indi jàmm kon sëriñ bi ne mi ngi ñaan yàlla ndox mu barkeel ndoxum jàmm ndoxum xéewal te wàcc jàmm ci réew mi wàcc jàmm ci àdduna sépp ndax xam ngeen ne sëriñ Tuubaa kat Cheikh Ibrahima waxoon na ne ci Cheikh Mamadou Moustapha la ko waxoon neewoon na ku fi nekk sëriñ bu ñaanee ñu may ko bu ti bu tunee bu tinee ñu tini ko te nëgë daawkat ba sëriñ bi woote bis bii ñëpp a jaaxle woon ndax doomu aadama moom daa am na ko yàlla binde li xelam gis la mën a wax te moom dafa am basiiru ndax day gis luñ gisut ñëpp a jaaxle woon mu daane màggat gi jub si ne waaye luñ ci góobe gar ko jàngoro ji daanaka kenn déggatu ko ñu àggaat ci dem màggal gi jàll yëf yi wàcc màggal jaal yi fi yëkkati ko waat mu wataat bisu bisu zikrullahi jagleel ko Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra fa cële yi fi tàggoo ba nag ni kon loolu xar baax dëgg xarxul aada dëgg la nit ñi nag àdduna bindoo noonu waxaaloo lan nu'mina laka hattaa tufajjira lanaa mina al-ardi yanbu'an ak fasqit alaynaa kisfan mina samaa'i kon naka jekk doomu aadama moo bindoo noonu te lu mu lu mu gis itam bu ñaanee suñ borom bu tiitee day dellu ci yàlla waaye suñ borom ni mu ko waxee ci alxuraan saasu bu ma la muccalee ci mbir ma rek nga delluwaay so sa borom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan itam lii ñuy bëgg a tàmbali tey nga xam ne dafa tombe muy liggéey Serigne Touba bii di màggal Touba gi ñaan ñu dugg ci jàmm te day see tawfeex day see ngërëmu Serigne Touba te la. duggee ci rek la Cheikh Abdoul Ahad daa wax liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ci am solo mooy façon bi waaye na muy fexee ba am moom nekku ci suñ loxo ci loxoom la ne ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kay jërëjëf ñoo dégg kàddu yooyu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadr mu jot li ñu ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides kon muy bis bi nga xam ne mooy altine ji jëm ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski war a dëppoo vingt cinq ci weeru juillet atum deux mille vingt deux mu jëm ci bisub alxuraan ak xasida boo xamante ni Cheikh mun Mountakha digle na fépp foo xamante ni kër Serigne Touba fa ñu dundal ko fa kon muy bis bi nga xam ne mooy tëj li ñu tàmbali woon ci njàng mi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ba keroog altine ci di dellu soir wara doon ñaar fukki fan ak juróom muy bisub alxuraan ak bisub xasida boo xamante ni sëriñ bi digle na ko ñu def ko fépp foo xamante ni kër sëriñ Touba am na fa kon nag ñuy ñaan yegg ci ak jàmm jëfe ko ni ko Cheikh du Mountakha Mbacké digle te lim ci fas yéene ko ci dongo yi ak bokki jullit yëpp suñu borom defal ko ci lu kawe njortam barke Cheikhul Khadim sukri li rabbil karim min kaana sakara wa artaji min ufiid daarayni abkaara sukran li rabbil kariim min kaana sakaara wartaji min fi daarayni abkaara katabtu sukran lahu maa qad rajawtu bihi kawni sa'iidan wa shakaaran ذكارا وذكارا وجات وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت منه تعا لا سكر وعمالي ورفع اليوم عنه ni ni'ma ghafara rajaat wa yamoo zallaat jumlata anni wa taqiro li dara kufara inni ukhatibuhu fil bari muqtariban wa lam yazal jallaqa هارا وجبارا فجاتني ربي بالآلاء أبولياء أعود للبرور رضو لي كل من بارا على النبي سلبي تسليمي بالقرآن ما ورفع وسجني بعض